ñun sës nañ ci mbir bi ndax nag wax dëgg yàlla munuñ di fay ay faute yoo xam ne ñoo ko def dem nañ sax bana leen sur et rek xaj na mënul ñàkk ndax léegi léeg am ku deful li mu war a def kon nañ bokk xaatim loo xam ne ñun ñi nekk ci chaîne bi pour jël conteneur bi xam nañ leen ku ci nekk boo deful li nga war a def fekk yow yaa waral li tax magasinage am wala sur et nga fay. àgg nañu ñoom ba proposer leen loolu ngir rek solution am waaye loolu pour ñu am kayit boobu signé ko rek problème la kon mu mel ni ñii daal dafa mel ni lekkum xaalis mi sàccum xaalis du ma ko sax tuddee sàcc agression laa koy tuddee ndax sàcc sax da ngay fekk borom tëdd di nelaw nga yor jël waaye lii moom danga koy jël mun a xuj di la xool nga jël ko dem mbëllee ko loolu moo am loolu nag lañ ne day jeex nañu xam ne collectif bi pareetul pour fay ben dërëm ben ben pikini boo xam ne sure sari la tudd wala magasin wala détention yoo xam ne ñu ko mën a fekk ñun dan no tooñ loolu mom nañ xam ne jeex na su ko defee ñu xam ne mënatuñoo dem li doy waar bindoon nañ fi protocole boo xam dañ na woon pour ñëpp nek ci jàmm ñu delu ci waat ci jàmm liggéey

ba ci kanam le premier ministre fañ ko signé fofa lañ ko tebbee tek feulé amna ño xamné tok nañ semaine soo appliquer appliqué 10 jours amna ño ñoo xam ba fiñi wax yeen appliquer wuñ lool ñi ngi continuer di laaj ci lo xamné ne ñun ñëpp ñoo d'accordoon né du 1er août ba 20 octobre amul frais sur les salaires magasinage yu ñu fi wara laaj dañ ko annuler lépp lool nek benn défiance bu multinational yoy di def sen suñu suñu autorité yi lool nak lañ la mëna tu mënatuloo continuer c'est fini. mënatula wéy ba tax na collectif bi décidé na altine incha allah di le 30 octobre arrêté lépp loo xam ne mooy ak payoor ci port bi seeni activités yi ci poor bi dinañ ko arrêté bañ jox ñu suñ conteneurs yi. te duñ ci fay nag benn surestarie bu ca mën a am wala magasinage dañ doon wax ni nañ bàyyi ba protocole bi am ñu ñuy wax naan ñi décision bi fa lay jógee faa lay jogee léegi xam nga lan la am fekk décongestion amut ci port bi fa ñu surestarie fa du magasinage mu jeex loolu nag altine lay tàmbali incha allah kañ lay jeex mi ngi des ci autorité yi li ñu def mom la ñu jàpp ni mo warono a mujj nañu ba il y a un mois ñu tok ak le premier ministre ak le ministre du commerce ak le directeur général du port ñu teunk bu jubo ci ay poñ lu melni du du premier août ba le 20 octobre lepp lu aju ci fay ci lu mel nonu dañ koy suspendre waye ñun transitaires, ak commerçant ak importateur amon nañ njort ni bu ñu yeggee ci le 20 octobre aussi du tax mu mu ndax port bi li est réglé. mooy il faut que compagnie yi nangoo indi ay cargo vide jël seen ay euh, vide yóbbu ko ba bateau yi indi bagage mën koo wàcc. loolu nag amul bañ ko tëralee. compagnie yi nga xam ne ñoo ko war mettre en application pour may transitaire mu ñëw ja bagage am te fay du ko ci fekk la ñu bind te nguur euh, nekk suñu kilifa ñëpp ànd d'accord ci ñoom nanguwuñ ko appliquer am na si ñoo xam ne toog nañu semaine soog a nangu am na ñoo xam ne fukk fan am na ñoo xam ne ba délai bi di expiré. defuñu ko ñu japp ni nak duñu ñu jël suñu kee ñu mom ko dénk ko ay compagnie wala dénk ko euh, euh, euh, Dubai Port mu bëgg ñu jappé Jam, ci suñu réew parce que suñu demee bala wax ni la même le directeur général du port pour mu dugg Dubai Port fay wut autorisation ñun aussi ñu ñu am luñu laaj moy contrat bi lié l'État du Sénégal à Dubai Port c'est ça doit être un contrat public ñun ñu nekk les exploitants ñun ñu nekk des acteurs du port teguñu ci bët lu mel noonu nag moo tax tey collectif bi daje ànd ak commerçant yi importateurs yi industriels yi transporteurs yi ak transitaires yi ñu ànd juboo ci dara mooy ku nekk la nga am comme arme moo ngay xeexe à partir de altine incha allah lépp luy payoor muy droits et taxes douane naam ñu nag douane amuñu benn problème ci suñu partenaire la bokk te jafe-jafe yi ñu am feneen la waaye bokkul ak douane dañuy arrêté paiement tax droits et tax dootuñu fay compagnie duñu fay transport duñu fay débarquement waxuma la surestarie ba lii soppeeku te amul luñ ko àpp nag àpp bi mu ngi des ci autorité bi nga xam ni moo ñu boole ñun ñëpp nekk suñu kilifa bu bu nammee buñ ko commencé suba a 8h à 10 heures solution am solution dina am waaye ñun fi ñu taxaw tant solution amul inshallah allah duñ fi jóge